daleen ak jàmm ñu tegtal leen ay kàddu docteur Massamba ci lu jëm ci wàllu dundu gi l'État bu Sénégal 1974 1975 ay at yu métti woon lool ba ñu mën ko méngale ak bekkoor te jooju jamono ay hélicoptère doon nañu woon naaw tiim suñu kër ya ca village ba di ñu sànni ay dundu askan wi daan ko jëli doon ko séddoo ci anam bu rafete coowoo du ci am 1974 1975 ay camion doon ñu jógee ca taax ak fu ne ci ay gox yu fasantikoo di ñëw ci village yi di ñu indil jën waay jur yi ci jamono jooju soxla woon ko lool waaye doon nañ ko séddoo itam te coow du ci am 1974 1975 ay hélicoptère doon nañu naaw ci lu suufee lool ca village ya di ñu jox ay dund yu ñu mën a jox suñu jur gi vivre de soudure wala soutien alimentaire jëm ci njaboot ki ko yittewoo woon lool baatub aide alimentaire xamuñu ko woon ndax amul woon dama jàpp sax ni du kàddu gu rafet ndax ndimbal la sax wala am may la ndax nekkul ne seen alalu bopp gu ñu joxe woon ci lempo moom lañ leen di joxaat ci jamono crise sanitaire asalaamaaleykum mbokk yi waxtaan wi mi ngi jëm ci ndimbal li nga xam ne dañ ko tuddee ndimbal te ma tuddee ko jàppale mu jëm ci askan wi nga xam ne dañ ko soxla ndax nag seen alal lañ leen di delloo ginnaaw bi kilifay réew mi jëlee dogal ne dañ leen koy jox daf ñuy fàttali ñun ñi nga xam ne ñi ngi woon ci biir réew mi 1974 75 ca bekkoor ba ay avion ak hélicoptère daan tiim suñ dëkk yi daan ñu sotti ay saakoy ceeb ay saakuy ripaas ak ràkkal borom kër yi daan génn di ko seddoo te kenn xuloo kenn daawu leen dégg mu amoon camion yoo xam ne sax dañ ci daan def jën ñuy ñëw bu ñëwee kër yu taxaloo yu ne ñu boole leen ñeent ba ñetti kalu jën ñu koy séddoo te kenn du dégg coow ngir yàlla dund bi nga xam ne dañ koo jox nit ñi te mu jógee ci seen lempo yi dund boobu ngir yàlla nanu fexe ba ñu ko moom jot ci ki ko joxe de xanaa loolu la bëgg ki ko joxe di xanaa loolu la yéen ki ko joxe di xanaa loolu mooy mébétam kon ñi nga xam ne ñoom lañ koy joxeloo nanu xam ne at mii nu ne kenn ci ñun bëggul ko dimbale kenn ci ñun bëggul ku ko yërëm waaye jamono ni toll am na ñoo xam ne dañoo soxla ku leen jàppale soxla boobu nag li ko indi mooy wopp ji ñëw ba nu tere leen ñuy taxawaale ko tamambaalu ci mbedd mi kon kay mbokk yi nanu fexe ba bu nu demee di ko joxe kenn bañ parparloo kenn bañ xool ni kii maag moom a ànd di politique kenn bañ a xool ne diw dama meroo woon moom ku ko yelloo nan ko ko jox dëkk bu ne koñ bu ne xam nañ ña ko yelloo xamante nuñ ci suñu biir ku nu yëkkati jox la ko te moomoo ko bu ko jël amal ngorug delloo ko ak fulla ak fayda bañ bañ koo xañ ci ko moom kon mbokk yi waxtaan wi loolu rek la woon mooy ne jamono ñëw na ah ngir yàlla yéen ñi nga xam ne yéen kilifa yi te war ko séddale yàlla may na leen bunt ngir seenu sag bañ a sàggeeku coronavirus nag mën naa rey waaye warta rey sunu jom bu ko kenn xëccoo bu ko kenn politique bu ko gën kenn xeexee bu ngeen ko defee di ngeen dimbale ñi ko war a jot dangeen ngeen dimbale ki ko joxe